jàngul alquran jàpp naa ne yooyu yëpp pour nit matale ko du yomb ndax dañoo xool ci àdduna ba fàtte suñu ëllëg ñaareel boo si nit ñi am nañu droit ñii ni damay yóbbu sama doom école ñii damay yóbbu sama doom Angleterre mais nit ki ni man li ma am droit bëgg mu dem école dama bëgg mu dem ci daara yi jàng te ñu ñëpp nag ay sénégalais lañu nag ku nekk am na choix te seetlu naa nag daara na wax dëgg neex yàlla monsieur le ministre vraiment organiser ko ak jàppale leen xool naa si bi ci bari mais am na ci lu ci bari lu ci rëcc ndax lu ma bëgg a jox exemple boo xoolee tey par exemple ñun en tant que maire des fois dañuy def ay parcelle day dagg ay lotissement mais da nga dégg ñu ne jox nañ école jox nañu jàkk jox nañ pot de santé mais daara kenn du ko ci boole waaye jàkk ji nga xam nag léegi ba ñu dagg daara amul fu ko imaam nu muy amee loolu war na bàyyi xel kon ma dax ni sëñ bi war nañ ko xalaat boo gisee tey Hann Médina boo xoolee deux ans ci ginnaaw bâtiment ba lakkoon neuf taalibe gaañu ci ba tey ñu bari waxuñ ci lan moo ko indi amuñu fu ñu nekk ñu bàyyi kenn ku nekk bu mbir amee rek ñu ne sëriñ ci dugg fu nekk kenn organisé wu leen bàyyi leen seen bopp ba dara am am kenn ku ne du ko mas tooñ il est grand temps nag ñu jël sa problème la ñu waxtaan ci ñu ñeme ko c'est ça la réalité boo xoolee tey projet de loi sur la mendicité appliqué ko yombul génn leen fii ñu ngi yalwaan parce que état war a am courage mu organiser ko mu waxtaan ak ñoom jéem a seet ban problème la am en même temps aussi nit ki mënoo ko ni ko bul def li joxuma la li sëriñu daara bi kenn fayu ko kenn jàppalewu ko nga ne ko nag léegi yow bu mu yalwaan bu lekk te ba pare nag am ñeneen ña xam bokkuñu ci kër gi duñu sëriñu daara am na taalib yi nga xam bis bu leen doon laaj sax dégguñu olof dégguñu dara ñu ngi jóge ci pays limitrophes yi ñooñu ci dugg rax ci nag ba ñu yàq daara yi foog ne ay nit ñu nga xam ne gëmuñu seen bopp ñoo de ay sëriñu daara yu pire ñu ngi ci man li may proposé mooy déjà créé nañu préparé nañu 64 daara nee ak 400 yoo xam ci paquet ci bi la mais néna la li nek Jurbel ëpp na 1000 daara yoo xam dugguñ ci système bi ñoo nan la leen di def té ñom nee gëmuñu daara moderne lañu gëm moy nanu ko féké won ak nanu ko wara doxlé loolu lañu gëm ñoo est-ce que dañ leen bàyyi en rat il faut passer à cette catégorie de daara té nag ma di wax encore projet de loi bi defar nañ wax nañ leen ñoom nañu waxtaan ba juboo mais ba tey mënaguñ ko indi à l'Assemblée pourquoi parce que seen biir ñoom il faut ma wax ak ñoom ñoo àndut ay dañoo ànd ku nekk dem ak sa bopp kon daara yi su fekkee ñoom tamit bëgg nañ ñu dimbal leen na nekk benn noppal état état jël ay responsabilité mu waxtaan ak ñoom loolu mooy problème projet du loi mënu ko te ñëw fii ndax danoo déggoogut mais nag état bul taxaw ndax boo duñu déggoo te duñu nekk benn mukk ndax yàlla sax am na ko gëmut jël leen seen responsabilité ngeen xool encadré ko kenn ku nekk amatoo droit tëj daara ñu formaliser ko ku ko ubbi da am autorisation par force boo ko amul loi dal sa kaw loolu moo tax barki dem gis ngeen affaire ndongo daara bi la mu am foofu parce que xamuñu communiquer ak ñoom xamuñu est-ce que projet de loi lan la mel ndax du ñu wax ak daara yooyu te ñoo nag ñoo ëpp ci Sénégal kon ma di wàcc sama kàddu foofu monsieur le ministre di la wax nga ñaan jàppale ñu daara yi ñu gën leen xool encadré jàpp leen xam ci réew mi la ñu bokk te am nga alphabétisation monsieur le ministre le programme national d'éducation des jeunes et adultes seul programme de l'alphabétisation n'a pas été déroulé pour l'année 2019 déroulé où nous connaissons. dans toute l'étendue du territoire c'est grave surtout taux taux national d'analphabétisation est de 64,5 et alors que beaucoup de régions 75,5 L'autre programme, qui est le PALAM, n'a pas, pas encore sorti ses résultats depuis le mois d'avril. kon bu fekkee dañoo bëgg ñun Afrique man de fii olof laa fi wax te dégg naa tubaab man Nations Unies sax olof laa ndax damaa gëm sama bopp barke sëñ tubaab parce que tant que ñu ngi topp sama dom bi dégg na anglais dégg na français balaa nga jëm si la oui papa oui maman nga kontaan wa ñun ñun ñun duñu développer tant que ñu ngi wax ci ay langue jamour mën ta nek je vous remercie Je vous remercie, honorable.